man kenn upp ma kattan ci ñuy dox ñu ma bokkal jam ndax bëgg seigne Touba la nangul kenn ku ma ci jël cey seigne Touba cey touba cey seigne Touba cey Sénégal bu amul woon sëñ Bamba dañ daan wax ne sëñ bi ko sa ñaari ba sax yombul murid ca kaw doxalam ba ca kanam sëñ maamu bismillah ci kafe gi